salut les amis ziar leen bu baax a baax dal leen ak jàmm ci seen podcast Wolof teg bi leen di jox lépp lu jëm ci wàllu informatique ak nouvelle technologie yi maanaam xarala yu bees yi ci kàllaama wolof alors tey la mercredi 16 juin 2021 ñu fas yéene def suñu épisode 3 ci saison 6 bi tey nag dañu leen di proposer benn mini épisode maanaam benn épisode bu ndaw la ñu fas yéene mottali discussion bi nga xamante ni amoon nañ ko ak euh, Binta Ngom ak Fodé Diop te ci épisode bële passé la woon maanaam ci semaine bi ñu génn euh, donc temps bi nag dafa guddoon trop moo tax ñu daggoon partie boobu noonu fas yéene leen ko indi tey ji nii ci mercredi bi alors tey dinañu waxtaanal ñoom euh, ci liggéey bi nga xamante ni ñu ngi koy def. maanaam ku ci mel ni Binta Jo bint Ngom mu ngi def ay euh, plateforme boo xamante ni day jënd di jaay ak euh, te moom day accepter li ñuy wax ay crypto maanaam ay bitcoin Ethereum ak yeneen crypto monnaie yoo xamante nii am na ci marché bi donc moo nekk première plateforme wala première entreprise boo xamante ni day def commerce te di accepter ay bitcoin maanaam ay cryptomonnaies alors Fodé Diop aussi moom mu ngi def benn liggéey bu am solo euh, ci communauté bi maanaam day proposer ay application wala ay ay ay ay ay ay code yoo xamante ni day permettre nit ñi ñu mun ko jëriñoo pour base ci lépp loo xamante ni bëgg nañ ko développer alors moom nag dinañ ci ànd ak moom dinañ ñu waxtaanal ci yenn application yi nga xamante ni mu ngi koy def bees mooy dañuy indi beneen rubrique boo xamante ni euh, ay news la c'est-à-dire ay news yu bees yoo xamante ni dina am ci monde bi monde de la technologie ki ci ciy àndal nag mooy Zeyna Diop moom dinañu indil ay information ci lan moo xew actuellement ci nouveauté euh, en terme ci wàllu technologie wàllum xarala yu bees yi ci àdduna bi alors Zeyna Diop dina ci ànd ak ñun incha allah euh, moom nekkul nag sur place fii nii mais dinañ ko jot par WhatsApp incha allah alors ñu dem directement nag kon suñu épisode tey bi maanaam suñu mini épisode tey bi allez jaajëf alors Binta euh, yow yaay euh, ki nga xamante ni yaa jiite kuréel bi nga xamante ni euh, ñoo tudd Bleu comme la mer nekk benn start-up ngeen yëngatu ci lépp lu jënd jëm ci wàllum jënd ak jaay ay produits yu ci mel ni ay jën wala ay légumes ngeen koy jaay te di nangu recevoir di nangu jël li ñuy wax ay cryptomonnaies maanaam lu ci mel ni bitcoin ethereum ak yeneen ak yeneen alors lan moo nekk objectif seen start-up noonu ak fan ngeen toll exactement ci liggéey boobu noonu. alors euh, Bleu comme la mer euh, benn euh, entreprise startup la bu bu yëngu si wàllu jënd ak jaayu euh, jën ak légumes. ok alors objectif bi mooy ñu def plateforme boo xam ne dañ koy basé si blockchain. Mhm. d'accord alors am na benn particularité si li ñuy liggéeyee pour le moment mhm. mooy. Euh, on est la seule entreprise au Sénégal qui accepte les paiements en euh, bi nga xam ne mën nga jënd ay produits moom mhm. si nga mën a fayee ci ay crypto mhm. genre mën nga fay ak bitcoin mën nga jënd jënd ak bitcoin mën nga jënd légume ak ethereum mën nga jënd leneen yëpp produits yi ñuy jaay yëpp mhm. ak euh, ay crypto voilà te loolu lenn rek moo ko waral c'est pour juste wan nit ñi ko ne euh, crypto-monnaie bi nga xam ne moom la nit ñi di wax weesu na aspect spéculation donc lenn tamit mën nañ ko ci def mën nañ ci di ci jënd mën nañ di ci échangé mën nañ jënd ay biens ak ay services ak crypto yooyu donc loolu kese moo ko moo ko tax a jóg donc ci euh, liggéey bi ñuy liggéey nag jotaguñu euh, def loolu mais mm-hmm. objectif bi c'est carrément pour def plateforme boo xam ne mm-hmm. c'est décentralisé nga xam ne jëndkat bi ak jaaykat bi dinañ di mën di jokkalante directement mm-hmm. sans pour autant que mu am intermédiaire benn intermédiaire nekk ci digg bi donc loolu mooy objectif bi ñu ngi ciy liggéey nag euh, am yoon bi gudd na parce que y a beaucoup de chemin à faire c'est technologie mi nit ñi miinaguñ ko donc c'est encore jeune Euh, mhm. am na yu bëri yoo xam ne maîtriser guñ ko mhm. mais au fur et à mesure que tamit euh, ñuy nekk si di ci yëngu mhm. donc dinañ maîtriser gën maîtriser marché bi gën a maîtriser euh, technologie bi xam li nga xam ne tamit moom lañ ko war a adapté pour que mën a am résultat boo xam ne kat ñëpp dinañ ko mën di euh, utiliser. voilà donc loolu mooy euh, bleu comme la mer en en en quelque en quelque macha allah idée bu extraordinaire la et je pense que euh, képp koo xamante ni mu ngi déglu su intéressé woo ci wàllum blockchain ak wàllum bitcoin war na mën a rejoindre Binta ci li nga xamante ni moom lay def parce que je pense que amuñ alal amuñ amuñ amuñ moyens yu bëri amuñ possibilité mais am nañ xalaat am nañ xol bu rafet am nañ teraangate te loolu Sénégal la fekk baax te loolu yëpp war nañ ko mën a boolante pour mën a boolantoo suñ biir boolante suñu xam-xam pour mën a euh, faire révolutionner affaire yu bëri quoi c'est-à-dire nga nekk développeur en blockchain tey nekk Sénégal war nga mën a rapproché wu ci Binta ngeen àndandoo liggéey pour que plateforme bi muy wax nii ak yi muy wax nii yëpp mu mën ko réaliser ñi nga xamante ni aussi seen xaalis lañ yor ñu jàpp ci ba nga xamante ni projet yëpp day mën a euh, dem ci kanam incha allah. Mm-hmm. alors juste avant ñu dem ci Fodé nag dañuy bàyyi euh, Zeyna Diop mu wax ñu lan moo xew ci xarla yu bees yi ci àdduna bi ci rubrique news science et technologie alors moom nag mu ngi ci whatsapp bi donc dañuy jéem xool lan la ñu indil lu bees allez Zeyna. salaamaaleykum mbokk internet yi dal leen ak jàmm seen podcast Wolof Tech tey nag ñu leen di seen rubrique. technologie xarala technologie lépp lu xew ci wàllum technologie mu nekk innovation mhm. wala mu nekk news suñu premier xarala côté technologie nag mi ngi concerné réseau social bi ñëpp xam ni workshop workshop dina andi euh, yeneen fonctionnalité yu bees bientôt fonctionnalité bi nag mooy Euh, ku am compte WhatsApp di nga mën a connecté wu si plusieurs appareils en même temps di nga mën a connecté wu si appareils yu bëri en même temps si sa mhm. compte WhatsApp en nga en sauvegardant même historique de discussion avec yooyu yëpp mais euh, au total ce sera quatre quatre appareils la mën a nekk soit mu nekk tablette soit mu nekk. Euh, soit mu nekk smartphone. Euh, WhatsApp aussi mi ñuy préciser aussi que ne loolu du impacter dara du du kii dara ci côté sécurité bi quoi. dina gën a sécurité bi du si du ci jouer dina gën a am sécurité comme comme comme il l'a toujours fait. Mhm. sur le deuxième xarale bi mi ngi concerné moteur de recherche bi ñu gën a utiliser euh, muy Google léegi utilisateur du ñëw ci compte Google am def ay recherche tapé def ay recherche wala mu dem YouTube def ay recherche sur des sujets wala mu utiliser Google Maps léegi après su paree mën na ko sécuriser mën na ko sécuriser ak mot de passe nga xamante ne su sécuriser ba pare léegi keneen du ñëw du mën a accéder wu si données yi du mën a accéder wu si historique de recherche am du mën a accéder tamit si si map bi wala du mën a accéder wu accéder tamit si si lu mu jot a def recherche si ci YouTube moom kese moo ci mën a accéder wu léegi pour mën a pour mën a pour bañ ñeneen yi accéder wu fi il faut que mu def ko mot de passe mhm. nga xam te ne day gën a am sécurité ok macha allah alors lan mu nekk dernier nouveauté bi nga xamante ni am na ci xarala yu bees yi enfin suñu dernier xibaar bu concerne toujours news côté technologie Google Chrome mi navigateur web bi ñu tàmm di utiliser. ok parfois indi na ay outils yoo xa utile boo xamante ne dina permettre nga mën a bloquer ay sites yoo xamante ne c'est malveillant. site yoo xamante ne euh, day. tey day utiliser ses données personnelles day dugg sa machine. utiliser ses données personnelles. Mhm. Euh, wala tamit muy am information si yow. si mhm. yow doo xam te ne biome côté négatif la. dina tamit dina def notification su fekkee da ngaa ay extension yoo xamante ne bokkul ak lu Google lu Chrome lu mhm. Google Chrome approuvé da koy directement. ça c'est cool da ngay bloqué directement da lay notification ba pare mu bloqué ko directement. li ma nekkoon suñu xarala yu bees si côté technologie. Mhm. ñu ngi leen di jox dig daje semaine prochaine si yeneen. xibaar yu bees. merci beaucoup Zeyna franchement je pense que euh, actualité yi aussi am na solo trop ci euh, ci podcast bi ah, c'est pourquoi ma faire appel à ma woo ko moom Zeyna parce que gis naa ko ci internet bi voilà muy publier tout le temps ay nouveautés yu bees ak yu demee noonu et bi ma ko proposé ko pour mu ñëw def rubrique bi dafa accepter euh, euh, facilement et je pense que souvent di ngeen ko dégg moom mooy ñi defal ay rubrique actualité ci podcast bi incha allah à chaque fois bu amee ay nouveautés yu bees. alors Uh, Fodé aussi gis nañ ne mu ngi def ay affaires yu bari ci internet bi comme dama sob ni ma ko waxee jot naa ci gis ay euh, ay affaires yu ni ay euh, Facebound Indigo Predict ak yu demee noonu mu ngi koy partage ak communauté bi en développeur alors Fodé uh, est nga ñu mën a wax ci euh, affaires yu travail yooyu ngay def di ko partager ak ak ak communauté bi maanaam ñu njëkkee par exemple ci Facebound quoi. pardon pardon sama ci téléphone sama micro bi c'était buté ah. ok euh, oui oui absolument donc euh, donc euh, euh ah, projet bëri en fait mooy sama projet juste code la boo xam ne c'est open source la man sama projet yu bëri mhm. jour dama koy dama koy ouvrir et je je je partage ça avec le monde. ok euh, euh, donc Faceban en fait c'est un projet que j'avais fait bu ma nekkee DIT quoi. Mhm. Sénégal en fait parce que du dina Covid bi il y avait un programme de machine learning. kër góor gi donc je l'ai je l'ai rapidement fait là avec DIT et mhm. foofu la en fait si biir foofu si laa defoon euh, Facebound boo xam ne que ne c'était juste benn logiciel pour mën a xàmmee kanam quoi utilisant du machine learning donc euh, pour man pour man en fait pendant pendant parce que je me je me considère un full un, un mais musuma jàng en fait machine learning et heureusement que j'étais au Sénégal l'année passée et j'ai pu participer au mm-hmm. Mais souvent, ce que je fais, moi, je fais beaucoup de, beaucoup de programmation, voilà, beaucoup mm-hmm. de, euh, beaucoup de, et tout ça, parce que je pense que c'est important. Et nous l'avons, en fait, amélioré au fil du temps, quoi. Donc, moi, ce que je fais je crée une mm-hmm. affaire pendant une semaine, deux semaines et je partage ça. Donc, je mets ça, je mets ça sur mon j'espère que j'ai léeg-léeg nit ñi utiliser pour espérer wu ou bien pour utiliser ça pour faire benn benn projet quoi et tout ça. ok donc euh, face pour reconnaître ay visage la quoi c'est-à-dire utiliser machine learning pour reconnaître ay visage alors Indigo nag Euh, indi ko tamit c'était euh, boobu boobu en fait c'est un c'est un concours aussi. Euh, boo xamante ne j'ai pas je fais un en fait dama doon programmation en Go. Mhm. et c'était pour générer ay images la woon quoi mais à partir de la programmation en fait wala pour modifier ay images quoi tout ça. donc comme xam woon assez de connaissances sur ça. Mhm. Mhm. je me suis mis dessus defe pendant deux mois et j'ai créé Indigo et Indigo c'était juste pour créer ay images yu beaucoup plus africaines. surtout la woon et modifier image africaine pour en faire un peu des images euh, futuristes quoi de genre wala hmm. afro wala daal donc parce que man j'aime combiner art ak technologie quoi en fait. donc un peu de codage boo xam ne dafa générer image wala modifier image wala genre. mais yow war la jege parce que man aussi art dafa ma neex ay tableau yu demee fu ma toll damay. voilà oui c'est important je pense. c'est important quoi mais en mais en ce moment mais en ce moment surtout liggéey surtout en ce moment en ce moment nii mooy euh, mhm. euh, euh, damay liggéey optimisation connexion entre téléphone bi Android bi ak blockchain bi en fait. ak blockchain bi quoi en fait loolu mooy loolu laa liggéey en ce moment quoi en fait loolu loolu mhm. ça permet de bâtir les banques du futur. boo xoolee bu baax parce que je me dis que comme comme je le avant xoolee bu baax Afrique c'est plus de 84 pour cent en fait les gens ont des ont des ont des dañu yore ay Android dañu yore quoi yorewuñu iPhone. donc man je me man en fait je me concentre sur Android en ce moment parce que mm. je me dis que comme je dis avant que banque banque future bi. c'est mm. juste benn Android la boo xam mm. ne que c'est connecté à la blockchain c'est juste ça. loolu kese la quoi loolu boo ko amee dina la permettre nga participer nga nga mën def commerce ak avec n'importe qui dans le monde ah nga nekk Australie wala Japon wala n'importe où nga nekk Sénégal nga participer avec n'importe n'importe donc pour man en ce moment là je me dis que en ce moment fu nekk nii fa ñu toll def recherche jëm mhm. a xool encore comment est-ce que on créer des, des pour nous en fait et par nous parce que boo xoolee baax par exemple euh, voilà application blockchain hmm. en fait soxlawul am nañ xam-xam am nañ xam exactement exactement quoi donc bu en fait donc bu mën de ça qui est important boo xamante ne on peut faire des meet-up avec mm. yi mm. et suñu paree partager xam-xam boobu noonu partager le code là avec la communauté su ko mm. defee képp koo xamante ne am na xam-xam wala tu es wala da nga intéressé def lu mel noonu mm-hmm. da nga a peut-être créer application bancaire yoo xam ne on sait même pas à quoi ils sont très, très forts. forts en fait. ils sont extraordinaires quoi. je pense que souvent ce qui se passe mooy que il faut que ñu démocratiser accès à l'information et aussi mhm. démocratiser accès à la bonne information. alors juste dernier bi predict. oui donc projet tamit moo tamit. <laughs> Euh, ah xam naa di nga wax dama sob de mais man damay wër <laughs> rek. non <laughs> non merci je je vois que def nga def nga mhm, mhm. en fait euh, avec Twilio. Euh, il y avait il y a mhm. ce que je en fait mooy dama bëggoon def prédiction machine learning à partir du SMS. tu vois hein? Okay. donc je voulais juste créer benn benn genre euh, ce qu'on appelle aussi mhm. ou bien euh, euh, proof of concept mhm. et li ma bëgg mooy tu as un système boo xam ne ne kii SMS la mhm. et mën mën mën nga envoyer benn tour benn nit mu wax la en fait la mooy chance su euh, tur boobu noonu nekk nekk góor tur la wala tur ah. jigéen la en ok ok et la fin je l'ai eu mais c'était surtout ay turu américain turu. international loolu quoi. non forke naa projet bi sax mais dinaa ko gën a de près quoi c'est un bon projet parce que en fait boobu noonu c'est ma première fois utilisant euh, Fast API. c'est un bon API système pour pour quoi. alors la. et, et aussi tamit waaw mais y' a aussi y' a beaucoup de y' a beaucoup de choses yoo xam ne dedans yoo xam ne c'est intéressant parce que comme comme ñun comme ñun comme ñun Afrique dañuy utiliser beaucoup de SMS. Mhm. xëy na dañu aider côté côté santé. wala non fi ñu ko mën a utiliser bëri na bëri na trop sax man maa ngi a remercier bu baax euh, Daouda Ba euh, bu Galsen Dev parce que moom moo tax ma am information yi sax aussi euh, am na benn site. Oh, am solo boo xamante ni moom mu ko am mu ngi ci uh-huh. bépp projet made Sénégal boo xamante ni Sénégal la jógee et je pense que loolu am na solo trop trop trop après ci description podcast bi dinaa fa bind euh, lien au site bi comme ça ñëpp mun nañ fa dem xool euh, Sénégal gars yi lan la ñuy développer ak euh, voilà yi ñuy def biir GitHub ak yu demee noonu pour mun a am base de travail boo xamante ni mën na leen permettre ñu mun a gën a efficace quoi. alors li moo nekk li nga xamante ni nag moom lañ leen indiloon tey ci épisode bi nii maanaam épisode trois ci saison 6 bi euh, mu nekkoon nag benn euh, suite la boo xamante ni moom lañ defoon ci épisode samedi bee passé te amuñoon temps bu bëri pour mun ko teg alors moom lañ leen indiloon tey jii nii mu nekkoon euh, Binta Ngom ak lépp li nga xamante ni moom lay def ci start-up am boobu na ñu naan bleu comme la mer ak aussi Fodé Diop li nga xamante ni mu ngi koy def pour communauté bi di ko partage maanaam mu nekk ay projet ay base de yoo xamante ni mu ngi koy def sur GitHub pour que communauté bi ñëpp mun cee jëriñoo pour mun a euh, sukkandiku ci pour def yeneen projet yu gën a am solo alors loolu moo nekkoon nag seen épisode tey bi ñu ngeen di jox rendez-vous samedi prochain ci beneen épisode bu bees incha allah allez merci beaucoup ciao